Cheikh Tidiane Diaye, un habitant de Sacré-Cœur nous avons deux préoccupations, surtout au niveau de la VDN. Il n'y a plus d'espace. Tous les espaces sont occupés par des concessionnaires. Nous ne savons pas par quels moyens ils occupent ces espaces. Soit avec des contrats avec la mairie ou alors avec je ne sais pas quel démembrement. c'est notre premier problème. Le second problème, c'est au niveau des riverains, les voisins. Chacun, il a de l'anarchie. À chaque fois qu'ils transforment leur maison, les systématiquement déversés sur la route, si bien que nous ne pouvons même plus sortir avec nos, avec nos véhicules. Je crois que ce problème doit être réglé dans un premier temps par le délégué de quartier qui doit normalement côtoyer les voisins, les riverains, pour expliquer et pour parler avec eux. Parce que le voisinage, il faudrait tout simplement le, pré le prévenir, le prévoir. Parce que s'il y a des problèmes, euh, ça risque de péter. Donc, ces deux préoccupations, c'est l'occupation anarchique de nos espaces, il n'y en a plus, avec les concessionnaires, Euh, la seconde préoccupation, ce sont nous, c'est nous dans nous, des riverains qui, qui, qui, transforment leur maison, qui mettent leur gravat directement sur la rue, si bien que personne ne peut plus passer. Donc il n'y a que ces deux problèmes-là, et je crois que nous devons nous concerter et en parler pour éviter quand même que notre quartier soit ci le, di seen émission boo xamante nag Tawfekh Production moo leen ko indil di dalal ay kàngam yoo xamante nag ñoo xam ñu nekk ci làngu politique yi wala ci wàllum koom-koom bi wala éducation soxal na actualité réew mi ak lépp lu jëm ci wàllum rek li suqali réew mi loole nag mu nekk loo xamante ni day am ci seen Tawfekh Production. mu nekk émission boo xam ne képp ku mu yitteel mën nga woote ci numéro téléphone yi li 77 792 50 43 wala boog nga jël numéro téléphone bi li 77 251 04 05 mbokk yi émission baa ngi képp ku mu itteel nag bul ko wute tey mbokki internet yi bu leen ko tardé benn yoon ndax lépp lu jëm ci wàllum décryptage jàngal leen au lépp lu soxal actualité réew mi dañ ko ci waxtaane ci biir émission bi direct entretien ci Tawfekh Production